mbokk yi nuyu naa leen képp ku wax ne de d'amnistie bi pour Ousmane Sonko la pour Pastef ak détenu politique yi waxoo dëgg madame la ministre dama bëgg nga wax samay mbokk député ak askan wi ne président Macky Sall bu bëggee génnee détenu politique yi mën na def lu ñuy woowee abandon des charges dama bëgg nga wax bi Euh, au Sénégal le président Macky Sall moom injustement arbitrairement qui le président Ousmane Sonko beaucoup de bëggee donné def abandon des charges madame la ministre dama bëgg nga wax askan président Macky Sall moom nga arbitrairement injustement Ousmane Sonko ses droits d'être candidat tout le monde, du président Macky Sall mën pas def modification de l'article L57 du code électoral que ma déposé une proposition de loi bo xamné depuis 7 mars 2023 kenn xoolu ko kenn et personne ne s'en est offusqué personne ou presque ne s'en est offusqué madame la ministre loolu nga wara wax président Macky Sall loolu nga wara wax askanu Sénégal mais kon waaw meun lañu génn mais du amnistie rek mo am pour mu génn légui nak mon bëgg madame le ministre nga wax askan wi ne lii tax président Macky Sall jaarul ci abandon des charges ak modification article L57 du code électoral mu jaar ci amnistie c'est parce que moom mooy le parrain des tortionnaires moom mooy le parrain des assassins moom mooy le parrain de ñi nga xam ne ñoo faat moom doomam sax ñu ngi koy tudd ci recruter ay nervi en réalité loi bii du pour Ousmane Sonko du pour Pastef du pour askan wi du pour détenus politiques yi en réalité c'est pour le président Macky Sall ay mbokam ay xaritam ak góor ak jigéen ñi nga xam ne moom la doon jëfandikoo pour torturer askanu Sénégal pour rey askanu Sénégal c'est ça la vérité parce que waru leen wax askanu Sénégal bi ne pour dab li mu bëgg amnistie rek moo fi nekk am na leneen bu jaarul feneen jaar ci amnistie boppam la bëgg a amnistier boppam la bëgg a protéger doomam bi doon recruter nervi mbokkam yi doon recruter ay nervi di jënd ay ngànnaay 45 milliards d'armes ñoom lañ bëgg en réalité mbubboo ginnaaw Ousmane Sonko mbubboo ginnaaw Pastef mbubboo ginnaaw détenu politique yi te abandon des na leen génnee

Ousmane Sonko waxul ku dee yaa perte Pastef waxul ku dee ya perte man du wax ku dee yaa perte du ñu nangu bokk Sénégal bo xamné ne Macky Sall ak ses comploteurs dañuy naan ku dee yaa perte justice justice pour ceux qui ont été assassinés justice pour ñi leen bóor ñi leen faat justice pour ñi nga xamné ne yéen a leen torturé justice pour ñi nga xamné ne yéen a leen gaañ ñenn ñi ils sont handicapés à vie mënuñu seen bopp dara toog sax mënuñu ko seen bopp